exceptionnel. mais ben, match bu mel ni match contre euh, Angleterre. Mm-hmm. amoo Ghana. Mm-hmm. ban composition est mettre en place pour pallier absence vous. xam nga ñi joué déjà euh, joueurs yu baax la ñu woon solo lool parce que amoon na variété ci jeu milieu terrain bi. Mm-hmm. am na ñuy joué court mais am na jouer joué long ba baax na trop mais beneen problème bi bu ñu fàtte ne Nampalys mi ngi woon ci biti. Nampalys depuis un bon moment c'était un titulaire.

baax na Aliou mën na seet ci ñoom xar kanamu kan moo ci mën a joxe loolu pour ñu dem ko parce que bu fekkoon tey jii euh, da ngay seet ci li ñu footballagum xëy na da ngay xalaat ni Elimane Ndiaye war na mën a def loolu. Mm. mais Elimane li mu doon def sur le côté à dafa am solo. Mm-hmm. dafa am solo parce que euh, moom saa yu jëlee bal bi autour de la surface ci proximité boobu saa yu ñëwee day indi li nga xamee ni dafa am solo. moo ko toujours saa yore bal bi dina fexe ba démarquer un joueur jox la waa marqué. mais puisque Angleterre lay joué moom Elimane. waaw te anglais la ñu taseel xam na championnat boobu parce que yaakaar nga ne atu la. atu la atu la pour moom suñu amee Kouyaté atu la pour moom euh, suñu capitaine il joue en Angleterre. Mm. suñu gardien de but il joue en Angleterre donc anglais yi ñoom ñoo gën a am problème que équipe du Sénégal parce que suñu bari na suñu joueur yu fay joué yu miin suñu joueur ay Harry Kane ak yoy ñu ngi daje ak kulbali donc kulbali xamna ñoñu ñooñu seen jikko ak yëpp té dinay waxtaan ak ñi nga xam ay angle lañ mu bokk ak ñoom Chelsea donc à partir de ce moment on n'a pas de problème ci lolu l'essentiel c'est que comme ni ma wax rek il suffit que Aliou nous trouve un tueur parce que nag dina jafé du jafé amna ci ño xamé ni ci joueur yi ci banc bi le banc est tellement riche que Aliou war na ci am na tan ko xamé ni buñ ko avec des directives dina les attaquants pour que nous dem ci finalité action. parce que tueur aussi pour nga am ko dafa am tout. Nous daf ñun football euh, tubab diko dans les petits espaces. Hum, hum. cest dire que buñu yanto nga distance ay 7 8 mètres dans la zone adverse passe de yombo ben jamono amna ben séquence fa def Gana Eliman ak euh, au niveau de du jeu day bax adversaire bi du la a xam nga lutax mm. ndax suñu joueurs yi fofu buñu problème. Mm-hmm. parce que centre de gravité barbie bi ngay am même bu la yow da ngay solo rek daal di mm-hmm. changer de direction change changer permutation am ballon bi day yëngatu waaye joueurs yi dañuy yëngatu. Mhm. mouvement du ballon mais mouvement également des joueurs permutation yi buñ ko amee te ñun le sénégalais bu ñu jouer à la sénégalaise comme on l'a fait hier par moment mais vraiment war nañ ci mën a génn. Mhm. yaakaar nga Sénégal euh, mun na génn ci match am contre Angleterre. man sama pronostic malgré malgré gars yi pronostic ne am nañ ci mondial bi ñeenti équipe yi la ñuy xalaat ñooy favori. Mm. mooy Angleterre muy euh, Brésil muy France muy euh, Pays-Bas. Pays-Bas Moi j'aurais remis l'Espagne à la place du Pays-Bas. ah d'accord parce que lui indiqué groupe bi am am solo il a des jeunes joueurs fait plein de daw du ñu gaaw a sonn. Mhm. li am li am moom Real Madrid ak Barça ko ils sont tellement forts te vitesse de jeu la am mhm. mais ñun waruñoo ñee kenn. Mhm. l' essentiel suñuy joueur nañu nangu di joxante ballon C'est ah. suñu problème que parfois parfois voilà dañuy téla a bal bi mais suma koy ma jox ko kuma faral jox ko kenen ñu joxonté ko dal di ba mm-hmm. na ma pronostic man bi euh, avant de commencer, mm-hmm. c'était que Sénégal dans le pire des cas avec ou sans Sadio am un potentiel pour xamné war en demi-finale suñu demi-finale tout est possible mm dañuy jëli coupe bi dañuy nangam ak yooyu suñu bëgg-bëgg la ñuy wax rek. Mhm. mais fu ñu yemoon en 2002 daal di dem en quart de finale Turquie éliminé ñu. Mhm. mais pourquoi pas cette fois-ci au moins ñu égaler loolu maanaam nu qualifier pour les huitièmes de finale donte que dina metti mhm. suñu diggante ñun ak Angleterre dina metti lool. waaw mais dafa am liggéey bi ñu war a def ci mental xale yi. waaw maanaam euh, xam nga yenn saa. Euh, bu ñu ak yenn équipe bi psychologiquement. dafa am xale yi taxawaay bi ñu war a taxawee ne sais pas parce que pays européen rek a def Afrique yenn koy manqué bi quel que soit joueur bu taxaw fii mun naa ko dóor na ma mën a dóoree man non travail psychologique bi a def actuellement parce que boo xoolee résultat deuxième journée yi wane na ni Afrique euh, li mu def nii premier tour bi. doon na loo xamee ni euh, ay coupe du monde ba taay danaan indi suñu valise mm-hmm premier match deuxième match ñu xamni mënu ñoo qualifier ñu préparer wu. ci ëlëk sëñu daal avion daal di mm-hmm. mais bien déjà. Mm-hmm. am nga Sénégal en huitième. le Maroc est une bonne équipe actuellement. Mm-hmm. té taxaw na taxaway bo xamee ni war accompagner Sénégal donc au moins dans le pire des cas ñaari équipe yoyu war nañ leen mëna am en huitième de finale et pourquoi pas en quart de finale. mën na te si on a deux équipes en quart de finale on a des possibilités am chance am ben au moins ci ñom bu mën percer en demi-finale bon xalé yi ñi ngi jouer en Ligue des Champions ñi ngi jouer Europa League xam nañ yeneen joueurs yi tous les dimanches et les week-ends ñoom ñooy dans le terrain xam nañ leen li ci am des ba des kay monde comme nañ gëm ni Sénégal fi mu toll ni dafa am ñom lu bari lu ñuy -hmm.

bu ñu gañee naka la Sénégal di génnee naka lay xoolu Sénégal di féexee bu ñu génnee. gis nga sax euh, coupe du monde bale passé bi ñu éliminé. bi ñu ñibbisee teeru bi ñu leen teeree nit ñi doxook ñoom aéroport ba palais dafa am lu lu bari lu muy def ci ñoom loolu saa yu image boobu ñu buñ ko delloo waatee rek daf leen di booster. ndax dañ naan ñii ñun gañewuñu coupe bi te xoolal nit ñu teeroo loolu moo ñu topp ba ñu gañee coupe d'Afrique. te fi mu nekk nii suñu statut de première euh, nation africaine gagné la coupe d'Afrique. on est en train de l'assumer dañ koy continuer. man mën na mën na baax euh, bu loolu man environnement buñu wara gérer. xam nga souvent équipe africaine buñu ñu commencé jël puissance dugg ci championnat yi yu du dugg ci yenn ba sori. Mhm. da nga wara gérer aussi l'environnement arbitral. parce que lu ci la bok parce que xex bi tamit mun na baña nek sax xexu terrain arbitre yi nañu yenn sa sot parce que euh, match entre guillemets buñu ñuy dugal loolu mun na ci yëpp na ci am lo sax day am très souvent. waaw day am très souvent calculer loolu lu baax. voilà day euh, mais c'est que. sur le plan de parce que des batailles géostratégiques. préparation préparation psychologique bi la ñuy wax ak ñoom équipe day toll foo xam ne dootoo wax ak moom technique ni tactique. Mm. da ngay wax ak moom ci boppam. parce que lépp li nga xam ne moom la ñuy def ci biir terrain bi. moo arbitre bi. arbitre bi moom euh, bu leen ko kii. balaa mu leen di wutal carton rouge dana wutal ay kii. match bi match bi passé nii. ak Équateur xeex bi am na ci non xeex nañ xeex bu metti hmm. mais am na ci ay moment arbitre bi dañuy laal mu ni jouer. Hmm. kon nag ñun da ngay jouer au coup de man man gëm naa ne ñooñu fa ne. Hmm. ak Aliou ak ña nekk ak côté de Aliou dinañ jël.